waaw damay revenir aussi ci manque d'accompagnement bi rek pour sénégalais aussi xam boxe bi nan la dundee tournoi de qualité bi et je pense que ni man dama koy déplorer mu nekk affaire boo xam ne vraiment métti nañ ñun trop muy acteur boxe bi ndax depuis la préparation avant pendant ba après ñun vraiment amul benn accompagnement bu ñu ministère bi defal. kon loolu dëgg la mu ngi xam ah, seen loolu am na pas même au-delà des pérdiums ndax man même su ma aspect pérdium bi sax mais. parce que Sénégal mënul organiser lu toll ni tournoi qualification aux olympiques mhm. ba pare nga am ministère de tutelle sur la préparation zéro accompagnement pendant la compétition zéro accompagnement après la compétition zéro accompagnement c'est-à-dire nous nous sommes débrouillés du début à la fin mhm. c'est-à-dire fait dix dix jours de regroupement externe boo xam ne dafay zéro accompagnement avec le ministère c'est notre président qui se débrouille avec ses propres moyens ba ñëw aussi regroupement interne on a fait vingt trois nationale mhm. pendant les vingt dañ doon kolokoloo di dajale suñu bopp ñun coach yi le président ku ci nekk dindi indi sa bu yëg sa Dakar ñu nekk fa di ko lijjanti ba def vingt trois jours de regroupement interne ba ñuy dem sax di région de Saly on s'est débrouillé pour le transport pour dem Saly ba ñu demee ba compétir ba pare boxeurs yi recevoir une seen période normalement y a une direction de la haute compétition bu gérer tout ce qui est per diem te normalement avant ñuy démarrer compétition bi on devait recevoir nos per avant le démarrage recevoir uñ ko ñu toog di taaxeerlu mel ma direct euh, kii de chef de délégation bi je le salue de ce passage madame Guèye ñëwul ndax elle n'avait pas des fonds pour accompagner pour ñëw ñëwul du début ba mu jeex ba ba ñu ñibbi hmm. boxeur dañoon duñ dem dañ maa fallu ma waxaan ak ñoom waxtaan ak président bi mu envoyé ma paas deux cent mille bu ma ko tudd sax monsieur Mawone Maam seen vraiment di si def dooleem ak xalaatam ak lépp lu mën. d'accord léegi loolu lañ jël jox leen ku ne dix mille dix mille ñu dem jël oto. Hmm. ñibbisi même blouson yi ñu soloon sax. doo jël taxi. ku ne da ngaa xool looy ne jël oto indi si. même blouson yi ñu soloon sax. Hmm. on a corrigé chacun vingt cinq mille pour defar blouson yi. d'accord.